Je rappelle que nous sommes à l'arène nationale. Les premiers à être impactés, c'est les promoteurs de lutte. Et c'est les premiers à avoir contribué pour accompagner l'État à faire face à cette pandémie. Je rappelle que lors de la réunion au palais, le président Macky Sall avait pris les grandes mesures. Ce même jour, le mouvement sportif était au, au ministère des Sports pour barrer la route à la pandémie parce que le maître mot c'était il n'est pas question que le sport soit le couloir de transmission de, cette, de ce virus. En tant que ministre des Sports, j'étais très honoré de voir des collaborateurs aussi responsables qui montrent tout simplement à la face de ce monde que le monde sportif est incontournable dans le développement économique de nos pays. Nous sommes restés sept mois et aujourd'hui, on tous du bois. Au Sénégal, on a une tendance baissière. et partout dans ce monde, nous continuerons en tout cas à vivre en présence de ce virus parce qu'on ne peut pas savoir quand est-ce que cette pandémie va disparaître. Et le président Macky Sall avait dit en son temps, dans l'un de ses discours à la nation, qu'il faut apprendre à vivre en présence du virus. C'est tout à fait normal puisque quand on prenait la décision d'arrêter, c'était une consultation, une rencontre de prise de décision. Quand on envisage de reprendre, il ne faut pas être surpris. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire d'appeler les acteurs, les présidents de fédérations et groupements sportifs, les partenaires, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, la presse sportive, tous les acteurs, pour que cette journée soit une journée de réflexion et de proposition. Et quand on aura fini les grandes décisions seront prises, mais je peux vous assurer que nous allons vers la reprise des activités sportives parce qu'en réalité, nous avons bon espoir. Le Sénégal qui est classé deuxième dans la prise en charge de cette question qui est extrêmement difficile, nous pouvons espérer qu'avec les gestes barrières, avec certaines mesures, nous devons pouvoir faire face et recommencer nos activités, mais tout en respectant les gestes barrières. Ce n'est pas une question de remplir l'arène nationale. Ce n'est pas une question de remplir un stade. Mais c'est une question de reprise des activités sportives parce que nous abordons les compétitions internationales. Et dans le discours du comité olympique, dans le discours que j'ai donné tout à l'heure, nous avons fait allusion aux compétitions internationales et nous sommes sûrs que ça va être beaucoup plus difficile, beaucoup plus coûteuse. Ça va être en tout cas une chose nouvelle. Et il faut s'adapter à cette nouvelle situation. Et je fais confiance à nos amis présidents et responsables du mouvement sportif. D'excellentes propositions seront mises en tout cas sur la table et nous aurons de fortes conclusions. Et d'ici la fin de la journée, nous pourrons revenir sur ces conclusions. Mais ce qui est constant, c'est euh, le respect strict des gestes barrières. Il faut mettre des masques, il faut la distanciation physique, il faut le lavage des mains systématique. Il faut faire de sorte qu'il n'y ait pas de mobilisation inintelligente, comme on peut le dire. On ne peut pas venir mettre 14 000 personnes ici au niveau de l'arène nationale. Mais je pense que si on respecte la distance, si on met le masque, si on fait les tests avant les compétitions, c'est des mesures, parce que le Sénégal n'est pas n'est pas, n'est pas à part. Le Sénégal est dans le dispositif mondial. Il y a des compétitions qui se passent ailleurs. Nous devons nous donner les moyens de faire la même chose et de faire plus pour protéger nos acteurs. Le reste sera fait par le groupe et ensemble avec les ministères sectoriels qui sont dans l'organisation des compétitions sportives. Nous prendrons les mesures qu'il faut et nous déclarerons ce qui a été conclu avec nos amis sportifs. waaw dañu sant bu baax balaa ñuy yegg ci reprendre sant bu baax mouvement sportif par fédération groupement sportif mooy ñi nga xamante ñoo yore tàggat yaram ci réew mi waaye tey daje bi balaa muy am dafa am lu ko jiitu li ko jiitu mooy bi mbas mi amee sportif yi nga xamante ñoo waroon a ne am jaax jiixi jaaxa am taxawaay bu jaaxal sax autorités yi ne dañuy continuer activité yi dañu lànk ne duñu ñu nangu corona gi jaar ci monde tàggat yaram pour tas ci réew mi loolu nag ku am fulla ku bëgg réewam moom mooy jël décision bu mel président yi loolu la ñu def taxaw ne dañuy gunge état bi ci xeex bi dem ci sensibilisation bi ñu ci jógee dañu dem dajale seen i koppar dajale seen i gel nee naa fii ñu taxaw ci arène nationale bi samedi bi ñu arrêté compétition dimanche am na promoteur bu defoon xaalisam pour tëgg mais fàtte nañ sax koppar yi ñu ci def ngir réew mi ba ca suba sa ñu andi ay gel andi ay koppar pour participer ko jox ko état bi pour ñu xeex mbas loolu képp ku jiite tàggat yaram jiite njaboot ñu taxawee noonu bégte rek nga mën a parce que c'est la responsabilité la ca tegu mooy ñu gunge état bi ba tey juróom-ñaari weer kenn deful tàggat yaram ñu gis yàllaa ngi ñuy dimbale mbir mi mu ngi wàcc lañ ca xamuloon am na luñ ci xam léegi ñu ne war nañoo mën a xalaat teg ci table yi ñi nga xamante ne ñoom la concerné ay proposition pour ñu xam naka la ñuy def ba reprendre activité sportive parce que dëkk bu amuloo activité sportive wéetaay day bari ñu dajale leen te jàpp nañ ne bu ñu xalaatee ba ngoon dinañ ñu tegal loo xamante ne bu ñu ko defee ànd ceeg ministère de la santé ànd ceeg ministère de l'intérieur dana baax pour que ñu mën a commencer waat ay compétition li nga xamante ne kenn mënu ko toxal mooy takk masque soriato raxasu mooy li ñuy wax geste barrière loolu kenn mënu ko toxal mais naka la ñuy def nag ba commencé waat yemul ci lool rek ay disposition la yoo xam ne war nañ ko jël te du ministère des sports rek a ko war a jël moo tax tey ñu dajale leen te ñu am nañ ci ñoom kóolute mouvement sportif comité olympique waxtaan yu bëri seq nañ ko suñuy naataangoo ci àdduna bi xam nañ ni muy doxe feneen waaye Sénégal dafa am spécificité mooy na muy doxee dinañu ko doxal waaye ñun sax dinañ ci yokk toujours toujours Sénégal pour que mu gën a am xorom gën a baax te gën a wóor parce que du ay caaxaan moo tax Sénégal ñu classé ko deuxième ci monde bi ci ni mu taxawee ci mbas mi kon war nañoo am yaakaar li am solo mooy boo nekkee ci mbir dooy nelaw ba mu bett la bañ yàlla ne la jógal dangay ngay defaru ba bu ñu la nee départal rek fekk yow say matuwaay ak li nga war a def xam nga ko ba nga xam ne boo déparé li nga retardé nga mën ko rattraper au fil du temps donc loolu moom moo nekkoon daje. sant yàlla waaw sant yàlla bu wér. Euh, di rafetlu aussi ndaje bi fi am euh, séminaire réflexion pour les relances des activités sportives xam nga loolu boo ko déggee rek xel day daal di dal parce que umpale la ni ñun ay promoteur lañu saama ngi nii moor a ngi nii ñun la ñu délégué pour ñu daal di ñëw fii donc euh, fii ñu taxaw arène national la umpale la ni bi ñuy jël ay décision fekkoon na moor mi war a tëgg ci ci suba sa man mi umpale la ni Siteu Papa Sow ay millions yu bari la donc euh, te teewul bi président jëlee décision yi ñun ñoo njëkk a indi suñu contribution ñun ñoo njëkk a suñu pierre ci édifice bi muy association promoteurs yi kon loolu gëm yàlla la ak sant yàlla parce que yàlla bu indee ndogalam rek dañ koy gërëm sant ko parce que ay jaam lañu kon bu ñu ñëwee fii tey ñu ni li ñu fi indi mooy waxtaan nan la ñuy yëkkatiwaatee mbir yi kon loolu dañ koy rafet lu sant yàlla xam ni alhamdulilahi rabbil alamin ñaan nangu na parce que boo xoolee tey jii nii taux bi fi mu nekkoon wàcc na bu baax donc tey c'est pas pour rien que le Sénégal est positionné deuxième donc loolu sant yàlla la li ñuy ñaan nag mooy mbëbët bi lël gi nga xam ni moom la ñuy dugg conclusion yi muy doon conclusion yoo xam ni bénéfique na pour sport te it recommandation yi nga xam ni danañ ko fi def na ñëpp tënku ci loolu su ko defee ku nekk gis ci sa bopp loolu daal la ñuy ñaan yàlla ni nga ko waxee comme sport yi lu ci mel ni football mun nañ ko def huis clos mais président est-ce que làmb mën na doon huis clos. déet bu ma dugal ci huis ouvert dama ne la dañu nekk ci benn lël. conclusion yi génnagul. kon décision yi mënaguma ci prononcé wu. man li may rafetlu rek moom mooy tëjoon nañu dajawaat juróom-ñaari weer afta dajawaat nañu pour ubbi pour waxtaan nan la ñuy ubbee loolu sant yàlla la ci ku koo xam ni ak wala ñoo xam ni investir nañ seen ay millions. millions yu tëddoon di nelaw banque boo ko defoon mu jur ay intérêt ñun ñu jël ko jox ko mbër yi daal di toog tegale suñu ay tànk di xaar kon bu ñu nu woowee toog di waxtaan nee ñu dañoo war a ubbi kooku dañuy sant yàlla bu wér. kon mel ni yéen yi seen xel commencé naa dal. suñu xel dal na ñun ay jullit lañu yàgg nañu jok jokkante ak ay tolof tolof loolu mbir yàlla la yàlla mooy indi mooy dogal moo fi indi mbas mi dañ koy ñaan yàlla mu jële ko fii wàññi na ko ba suñu xel dal ñaata weer nga toog séminaire bu mel nii amu fi cela veut dire que ya a une nette amélioration xam nga lu tubaab wax les acquis il faut les conserver cela veut dire que maintenant à la sortie de cette rencontre les conclusions soient respectées et les recommandations soient suivies à la lettre loolu rek la ñuy ñaan yàlla parce que loolu mooy doon suñu njariñ ci la ñuy gise ci suñu bopp te it ñu permettre quand même ñu duggaat ci suñu ay investissement yow en président ndax ci Siteu nga yem wala dinaa bi yaa ngi doon togg leneen ci suuf. yow ñu tal wér gi yaram tal Sénégal ñaan yàlla mbas mi jóge fi naal dindi li ma log ba pare Siteu Papa Sow moom bu ma ci paree ba pare ñu door a seet leneen. waaye ñu nekk di def si Papa Sow ñetti weer des ñetti semaine des ci combat bi yàlla indi nattu ngay xalaat leneen yow kañ talal sa bopp rek ak sa njaboot ak réew mi bu yàlla musal ñu rek bu ñu musalee ba pare. ba suñu xel daal ñu daal di dikk def suñu site Papa Sow yàlla dimbali ñu may kattanal ñu ba ñu def suñu site Papa Sow ñu door a xool leneen. commencé est-ce que site Papa Sow mën nañ ko pour être honnête man du ma spéculer tant que recommandation yi fii jëndul ba ñu xool ko xam lan lañ ci wax lan la ci tënk experts yi nekk fii lan la ñu tënk du ma mën a prononcer wu ci ay perspectives site Papa Sow maa ngi lay gërëm di la sant. waaw président Pape Fall moom bu waxee te muy kilifa dafa naan amatul dara luñ ci teg yéen moom da leen gërëm di leen sant di ñaan yàlla rek activités yi continuer si jàmm maa ngi ziar ñëpp. waaw comme dab rek maa waroon tëgg le 4 avril yàlla def li comme ni ko président waxee léegi rek mais dañuy ñaan yàlla comme li fi fekk tey rek ñu déglu lépp rek xaar bu ñu ubbee activités yi ñun pare nan pour àggali si ay journée ak yeneen ak yeneen sax nag ay ndaw lan ñu ngi suñu ay liggéey di ko def mais aussi ñu ngi ci làmb ji waaw lii daal dañ koy rafetlu rek waaw ñu ngi xaar euh, journée yu bari suñu kanam daal waaw ñu ngi rafetlu lépp di leen ziar di leen sant di leen gërëm yéen ñëpp wax dëgg yàlla seen liggéey rafet na ñu ngi kontaan bu baax jërëjëf merci beaucoup. Mor waaw sant yàlla julli ci yonante bi gërëm suñuy waajur comme ni ko Sam waxee rek bu suñu président waxee ba noppi on dara lañ ciy dolli mais xanaa sant yàlla rek ñaan yàlla suñu borom mbas mi jóge fi ñu delluwaat suñu activité ku na xam na ni mbas mi metti na mais comme ni ko président waxee rek bala ngaa mën a benn activité day jeex nga soo a tàll leneen maa war na tëgg sur la lan demi ba mais yàlla daa dogal eh, ak ay dogalam ñun ko nag comme ni ko président waxee kon dañuy ñaan yàlla loolu jóge fi ñu commencé waa suñuy activité dooloo buum ca mbooy mboy ba jërëjëf ñoo ngi sant gars yi nag di wax waa tuubaa ñu xaar ñu ñu ngi ñëw ci màggal gi ak waa Sénégal gépp jërëjëf